je peux parler un peu du programme euh, PEJA, un programme qui est un projet pour l'employabilité des jeunes par l'apprentissage non formel. Voilà pourquoi c'est un projet au cours duquel les enfants issus des, ateliers non formels ont été pris avec leur patron pour commencer de dérouler des, projets pour une employabilité des jeunes. Et là, c'est un bilan fort pour moi, ce que j'ai ressenti avec les artisans qui vont se formaliser et pour que, parler du, problème, du, du projet PEJA, Programme pour l'emploi des jeunes par l'apprentissage non formel. Je sais que ce sera un déclic pour au moins se créer l'emploi du Sénégal pour les gosses. Ouais. Ce que je vois, ah, machallah, il y a des gens qui ont travaillé. Macky Sall mu ngi liggéey de soo ko xamee mu ngi liggéey soo ko xamul mu ngi liggéey mais am rew nak mo jafé jafé a yor réew munoo liggéey ba ñëpp àndandoor si ne li ngay def lu baax la ñi dañuy far yow ñi duñ far yow te réew mi fu nekk nii boo xoolee ku ma neex moo fi nekk diwoo ma neex diw laay fal diw laa fi nekkal déedéet réew nag du noonu réew boo ko yoree da ngay njaax naay di gestu sa réew yaa moom population bi ñoo la jël fal la pour sa réew da war a mun a jàppale sa réew mais ñi fal la nga yor sa réew jël population bi not leen di def loo xam ne ñiy jooy ñii di dee Nous sommes en phase avec l'acte 3 de la décentralisation qui a voulu faire une communalisation intégrale. Mais vraiment, tout ce que je souhaiterais, c'est que les moyens suivent. Que par exemple, les, compétences qui sont transférées et les communes, les, communes, les, villes, les, départements doivent être accompagnés. Peut-être le ministre des collectivités territoriales est en train de faire un bon travail mais il faut que les moyens suivent, il faut que les populations soient formées, il faut que les populations puissent approprier les projets du Sénégal ngay gis jeune yo xamantene da ngay dem buntu Sococim taxaw à partir de 7 h gaay yep génn nañ ngir lan bëgg liggéey mais amuñu liggéey kese doon fi entreprise bo xamantene war na mëna recruter jeune yep lolu mënul nekk makine dañ koy ñaan ngir yalla ak yonenté bu fekkenté dafa bëgg 3e mandat té lima lèr ba lèr moy ko ni mënta nekk parce que duñ ko ko may na jappalé jeune ngir yalla ak yonenté bi lolu kese kese kese lañ ko demandé jeune départ premier ci man dam élève la dama dan jang mais tay

D'accord, mais il y a un problème de mobilité ici à Rufisque. Parce que comme vous le savez, il n'y a pas une bonne appropriation des populations. Parce que comme vous le voyez ici à Rufisque, bon, toujours ça, il y a l'encombrement. Il y a vraiment les, les, les, garages clandestins. Et il y a tout un tas de problèmes. Et Rufisque ne, mérite pas ça, je crois. Parce que Rufisque fait partie des quatre grandes villes pendant la période coloniale, à l'instar de Saint-Louis, de Dakar et de Gorée. Macky le bilan au moins 0,0. plus zéro égale zéro parce que yaakaar naa ne boo jëlee euh, fu mel ni Tëngéej Tëngéej li ko war région de Dakar euh, bu fekkee Macky Sall réélire nañ ko tey jii nii Tëngéej moo tax parce que Tëngéej ci la am cinquante 54 pour cent Tëngéej la am 54 pour cent moo waral tey mu gagné région de Dakar mais waa Tëngéej ñu ngi jooy waa Tëngéej ñu ngi yuuxu tey jii nii Tëngéej yaakaar naa ne euh, delloo nañu Tëngéej comme. Euh, communauté rurale communauté rurale yu jëkkee ndaxte tey jii nii euh, Macky depuis premier mandat ba deuxième mandat du dara lu mu def Tëngéej deuxième mandat bi waa Tëngéej Falk avec 54 pour cent ñëpp yaakaar ni dina yokk mu gën a yées. lu mu jaaxal si réew mi si Macky Sall mooy population bi dañoo gën a sonn man lool moom mu jëkk jaaxal si Macky Sall te biñ koy fal dafa waxoon ne bu ngeen ma falee dinaa leen jàppale waaw ndaw yi surtout ndaw yi dinaa leen jàppale mais boo xoolee population nekk a sonn. foo dem ñu ngi jooy waaw loolu doyut ñu dolli ñi suñu liggéey lu ñu amoon sax di liggéey di faraatoo ko néew di si faraatoo ko ay dërëm ñaar dërëm dañuy ñëw duñu koy tere foofu tere ñu fu ñuy jaayee du ñuy dàqee du ñuy ramasse du ñuy indil ay finna te chaque jour ñu ngi jooy te amuñ kenn koo xam ne ñëw na wàllu ñu ñëw ñu jàppale ñu si waaw surtout luyaas bu mu loolu waxoon na da koy wàññi luyaas bi dafa gën a yokk man bi muy wàññi luyaas bi si luyaas la ma fekk mais fay vingt cinq mille ñu wàññil ma vingt ki loolu ma wàññil dafa ñëw na dafa soxla foofa génnal damaa soxla sama kër ma génn mu yokk ko di koy luyee appartement bi cent cinquante mille ci cent mille la ñu ko luyee a nga ne loolu da rafetul te Macky Sall nee na day wàññi luyaas gannaaw booy wàññi luyaas nga wut ñoo xam ne sax ay assange yoo xam ne dañuy topp si biir kër yi di xool yow ñaata lañ loonu la luyee nangam wàññi nañ la nga ne waaw léegi ñaata ngay fay nangam laay fay ah ba léegi loo ngay nga ne waaw nga duggaat si geneen kër laajte bu fekkee ne yokk ñu jël loolu daan ko teg ko daan mais boo ba léegi kenn gisul kenn dugg si kër di laaj loolu rafetul àndoon moom wàcc na leen ñii nga xamante ne moom lañ yaakaaroon di Macky Sall tas na seen yaakaar Macky Sall xar na tënga ñaar ndax teeram bii nii boo xoolee teer bi ñun ñuy dëkk côté nord suñu kër maam nekk fii nii nga xamante ne mooy civil bi tey jii ay mbokk yi xaajaar loola Macky la kéré tëngeej tey jii nii tëngeej amul benn autorité boo xamante ne a Madior Fall mi nga xamante ne moo nekkoon tey de la république am sax tey jii nii boo xoolee xoolal ni ko mujj def daa mujj wàññaa ay laafam dam ma ko ñëw teg moom doomu tëngeej lay bañ a gis kon tamit yaakaar naa ne gëw waa Tëngéej am si bilan Macky Sall zéro man Tëngéej gisuma lu fi Macky def. mënumaa fexe fexe fexe fexe ba liggéey maa fexe ba liggéey fu ma dem di liggéey ñu ne ma du foofu te yàlla wasagul ma ma am loo xam ne mën naa dugg si place amaguma ko man fu si mbedd laa am pour jaay te mbedd foo dem ñu dàq la foo dem ñu dàq la bu ñu waxee ñu ne Macky Sall moo joxe décret boobu dafa war a jàppale waa secteur environnement. moo na fi gën a baax parce que tey jii nii d'accord nañ ñun ay ndaw lañ. Euh, mu tabax ab stade bu baax mu tabax loo xamante ne mooy stade football stade basket stade lépp parce que tey xëllëg dañu am ay doom dañuy am ay sët loolu lu baax la mais tamit nag kalaa football yi kalaa basket yi xanaa di nga suur di nga lekk ba suur di nga solu di di di nga di nga tëdd fu baax. mais tey jii nii su condition yooyu lañ wax actuellement ma lay wax nii Sénégal lii ñëpp a dund mu ngi def courant baa ngi nii cher na mu ñu ñu ñu mu ngi nii ceeb bi barka démb lañ ko yokk sama soxla dama ko laaj kilo ceeb ñaata ma dama kilo ceeb yokk nañ si fukki dërëm ñun ñi nga xamante ne ñoo dëkk Tëngéej juddoo Tëngéej suufu Lebuy Macky Sall ñeneen yi ñu ngi ñëw di ko nangu borom barke yi ñu ngi ñëw nangu nañ suuf si sunuy moomeel nangu nañu ko fu mu nekk Tëngéej daal gisul boppam si mi nguuru Macky Sall par rapport à nguuru Senghor nguuru Abdou Diouf nguuru président Wade ñeenti at yi ñun xaaree nañ ko mu bettuñu ay surprise yoo xamante ni tey dinañ si mën a dinañ si mën a kontaan parce que ñun ay ndaw lañ parce que boo gisee tukkee tukkee tuñu pour toog pour lan pour defar pour bëgg defar suñu réew ndax mu jëm kanam parce que dañ ne doomu aadama booy defar da ngay defar sa réew ndax mu jëmal ndax mu jëm kanam mais ñeenti at yi ko dese na xool population bi lu mu bëgg population bi lu ñu bëgg mu di si dox tànk yooyu parce que benn population yi. bëgg nañ bëgg nañ marché yu baax population yi bëgg nañ terre bi mu xamante ne daka defar moo xamante ne mu xatal ñëpp mu xool mu xool terre bi nan la si mën a defaree ay pont yoo xam ne yu baax nga xam ne nii dinañ mën a dem ak dikk. njiitum réew bu jàppalee jeunes yi rek lu mu bëgg dinañ ko am parce que ñun jeunes yi sonn nañ trop parce que ñun au fur et à mesure ñun dañuy liggéey dañuy liggéey chaque jour chaque jour que jëfee dañuy liggéey. société yi bëri nañ fi mais société yi bu ñu nekkee en faillite ñun nan la ñuy liggéeyee kon Macky Sall kon war ñu mën a jàppale bu baax daal war na mën a jàppale askan bi bu baax ñun de lool loolu lañ ko yéene bu jàppalee askan bi jàppale jeunes yi jàppale dëkkuwaay yëpp ñun sa kaw sa kanam lañ koy wax.